li mu wax yeneen bi ni ko ñaari àdduna am àdduna bi bët tegu ak àdduna bi bët tegewul mu ni ko pourtant benn lañu woon àdduna bi bët tegu ak àdduna bi ba teguwul et pourtant benn lañu woon duggante ba mel ni benn lañu kaanataa ratqan xaq walla laa kaanataa ratqan fa fataqnaahuma moo tax savant yépp ni baatu fatq c'est scientifique ma ni leen c'est plus que scientifique parce que c'est Dieu qui parle ce n'est pas le savant qui parle ah. le savant c'est un bricoleur Dieu c'est un créateur c'est pas la même chose waaw ah. waaw mel ni ko nit xam nga ko baax xam nga ko baax na waa koo xam ni xam-xam bi muy jëfandikoo fi la ko fekk jumtuwaay yi muy jëfandikoo fi la ko fekk war na xam ni am na ku ko ëpp xam-xam waaw kooku loolu rekk ci nekk te lu mat a bàyyi xel la waaw su ko defee kaanataa ratqan fa fataqnaahuma waaw yombul ndax farq ak fatq ñoo fi nekk farq savant bi mën na ko jëfandikoo waaye risque ngi ci waaw farq bi mën na ko jëfandikoo waaye risque ngi ci fatq nag yàlla rekk ko man moom rekk ko man ndax foqati ak poqati bokkul foqati dafa am risque yaa ngi bëgg dindi dara ci dara te ci foqati nga ko dindi mën na fett mën na damm wante bu dee poqati nag dafay dangay ànd ak tenkoñ te loolu borom bi rekk ko man fexe ba ñaari àddunaam yi bi ñuy tuddee xayba ak shahada ñu ànd duggante ba nga defe ni benn lañu mu ñëw ci tenkoñam jàpp bii jàpp biir fexe ba bii mu rocc ko mu nekk xayb ba abadan bii mu rocc ko mu nekk shahada ba abadan ngay gis bi bi ci shahada bi te doo gis bi ci xayb te bu sa contact daggee ci bi ci xayb ñu fàtte la parce que dañoo xam ni doon nit waaw te it sécurité la sécurité la nga nekk fii nekk fële sécurité la te ban na nekk nag nit ñee ko wutul rekk de buñ ko wutoon it am ko